alors dañuy door li nga xamante ni mooy li gën a fees à la une des journaux parus mercredi 9 euh, octobre 2024 ak yenn kayu kër gi source am yi nga xamante ni àdduna ci pàcc yu baree bari ba ca gën a fees bokk ci euh, déjà laata ñu ñëw ci langue politique yi dañu waxtaanee ay Mbodj mi nga xamante euh, ni mu nekk ca boppu DER commencé ay financement yoo xamante ni jamono ji dafa mel ni jigéen ñi ñëpp nag kenn toogatul koo gis rek ma ngay dugg ci ci internet bi wala sax muy dugg ci di ràññee 6 heures du matin 5 heures du nga xam ne réewum Sénégal soxla nañu ndimbal nañ ci jàpp bu baax a baax a baax 6,5 milliards injectés à Kaolack euh, bien à Kolda dans le cadre de la territorialisation euh, des actions de la DER 75 euh, millions de francs fa pour la fabrication de glace de de ñaagis Omar bon Niaguis bon dëkk la ah. Niaguis dëkk la quoi. d' accord c' est dans le sud du pays quoi. Hmm, hmm. d' accord dinañ si dikk xam naa ci euh, yaatal gi ay dëmboo ca dépense sans compter au sud euh, du pays source A qui revient également ci li nga xamante ni moom mooy attitude bi nga xamante ni Marième Faye Sall l' ancienne première dame amoon na ko ba tey attitude bi nga xamante ni la ministre. Euh, Yacine Fall am na ko mu ne ak euh, attitude bi nga xamante ni ay sa kamara daal dina koy am jëm ci wàllum agression de l' ancien président Macky Sall euh, foofee ca avion ba lañ lañu xam ne nee nañu ay responsabilité la yoo xamante dañ ko daal di partagé ndaxte booy xool euh, trois fois dégueulasse noonu lañ ko bindee à la une du quotidien euh, source a mu daal di këkk ñu daal di ne euh, ay sa camara mi gannaaw ba nga xamante ni daal di day agressé Macky Sall ca biir avion ba dafa génn nag di di di di glorifié wu di wane boppam que ni héroïne la yëglekaay bi di kàcce bu baax a baax daal di ne taxawaay bi nga xamante ni ministre des affaires étrangères am na ko rafetlu wuñ ko bu baax ndax dafa sàkku rek ñu daal di koy euh, protéger daal di koy euh, daal di koy euh, nan lañ koy waxee sax libéré voilà donc pour mu mën a euh, dellu si waat wala euh, vaquer à bien euh, ses occupations donc mu ñuy xamal que ni attitude la boo xamante ni rafetlu wuñ ko bu baax a baax ci xëtu yëglekaay bi Omar dina ci dikk dans les détails toujours à l'une du quotidien source à mu daal di ne le marché Lyon Azer à eau power épicerie suspendu par le comité de règlement des différends yëglekaay bi dikkaat bu baax a baax ne le scandale présumé se précise plus de détails à la page 5 de ce quotidien ba tey source a qui revient également ci li nga xamante ni moom mooy polémique autour euh, du port euh, du voile euh, à l'école euh, de retour nee na bu baax a baax dellu si waat na maanaam coow li nga xamante ni moom moo jëm ci xale yi muuru di nekk ci école privée catholique dafa mel ni euh, dellu si waat na mu ne euh, ça ne dialogue pas entre le gouvernement et le privé catholique dafa mel ni ni ki démb am na élève boo xamante ni rek wala barki démb daal dinañ koy dàkk euh, ci ñaari école dinañ ci dikk ci ni mu gën a yaatoo bu baax a baax école privée catholique ndaxte lan ndaxte dañoo muuru mu mel ne nag am na benn arrêté bu génn daal di ne euh, que ça soit les établissements privés ou publics nañu xam ne euh, muy xale yi takk croix wala xale yi nga xamante ni rek dañuy muuru kenn dootu leen dàkk ci ci lépp lu mu ci mën ci doona ba tey mu daal di ne je vois mal réunion d'IJ du connect du COMEX de la Fédération sénégalaise de football du comité exécutif. voilà ce qu'il faut savoir sur les grandes lignes euh, peut-être Omar dina ci dikk ci nu ma gën yaatoo man xam naa damay bàyyi revue des parce que gisatuma je vois mal. bien sûr il <laughs> il faut lire les grandes hymnes. Ah, peut-être loolu benn dina ci dikk na mu gën a yaatoo. wax <laughs> dañ lay bàyyi nga décortiquer euh, ak euh, Aïda Mbodj laay tàmbalee quoi mm. euh, bon parce que xam naa ni yow moom dafa mel ni financement yi ah, intéressé na ah, tey jii bu ñu la financé woon ci lan ngay investir maman. waaw waxee damay bañ am problème ci réew mi de. Mm. <laughs> waaw baax na mais en tout cas bon Aïda Mbodj gis nañ ni en tout cas la DER. Euh, boo gisee affluence bi sa montre que comme tu l'as dit que sénégalais actuellement ñoom mm. soxla nañu financement Euh, pour euh, nekk seen activité rawatina ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy soxna yi parce que ñoom ñooy les cibles principales yi nga xam ne nii bon waa DER ñoom la ñuy tànn euh, l'autre chose bon c'est par rapport ak li xew ci benn vol boo xam ne nii président de la République Macky Sall moom moo si nekkoon ak soxnaam kii di Marième Faye Sall ñu waroon dem Paris juge Rabat léegi nag gis nañ ni en fait am na benn soxna soo xam ne ñëw na attaqué ki nga xam ne mooy ancien président la République Macky Sall ak attaqué na ko lu yàgg Macky Sall réagirul mm-hmm. après nag ci la ko ki nga xam ne nii moom mooy euh, mm-hmm. l'ancienne première dame la Lyon Marième Faye Sall moom wane ay griffam bon dal ci kaw soxna si léegi nag waaw euh, dal ci kaw soxna si léegi nag ba mu mm-hmm. daree ci kaw soxna si gis nañ ni en fait que au niveau de l'avion euh, am na ñu ñëw di laaj Macky Sall est-ce que moom mm-hmm. euh, il souhaite porte plainte maanaam est-ce que dafa bëgg jël affaire yi yóbbu ko ci yoon Macky mm-hmm. Sall ne leen en tout cas euh, man du ma ne damay porte plante wala leneen mais en tout cas yéen yéen a xam seen liggéey xool leen mm-hmm. li ngeen di def léegi nag ñoom ñu jël la dame là elle a été arrêtée mais nag y a intervention kan moom mooy ki nga xam ne nii moom mooy Yacine Fall moom mooy ministre des affaires mu intervenir en fait pour ñu bàyyi ki nga xam ne ni moom mooy soxna soosu léegi nag bon moi c'est pourquoi on naa écrit euh, trois fois dégueulasse Euh, trois fois dégueulasse pourquoi parce que soxna sii di saaga ki nga xam ne nii moom mooy mhm. Macky Sall ça c'est dégueulasse c'est mhm. dégueu bon comme on dit <laughs> pas normal euh, soxna si nga xam ne nii moom mooy Marème Faye Sall tamit moom elle n'avait pas aussi à répondre aux insultes parce que dañ ne bon waa mbaam bu la wékkee rek nga wékk ko mhm. daanaka yéen ñaar ñëpp ay mbaam ngeen léegi nag ki nga xam ne nii moom mooy Yacine Fall aussi dégueulasse dans quel sens mooy tey jii day mel ni en fait moo ngi encouragé loolu noonu parce que tamit Macky Sall quoi qu'on dise c'est un ancien chef d'état te képp kuy bëgg a attaqué Macky na nga xam ni Macky day ànd ak waa GIGN mm. parce que ancien président la day am ay garde rapproché ba léegi te mm. ñooñu dafa am spécial détachement GIGN boo xam day ànd ak ñoom bu la dooree bal yow yaa mm. perte loolu moom c'est une précision à faire l'autre chose c'est par rapport à laser Euh, parce que laser ñu yàgg nañ si wax man benn jour euh, waxoon naa si ba ki nga xam ne nii euh, moom moom a AAOP Sénégal ba mu dénoncer un scandale après je suis revenu là-dessus parce que y avait aussi la déclaration de Jean-Michel Sène te mm. aussi il faut équilibrer l'information léegi tamit man joxe woon nañ fii ay argument yu mu yëkkati woon en fait pour arrêter contrat boobu léegi nag ñi nga xam ne nii ñoom ñooy saytu wàllu marché yi muy ARCOP ARCOP remplacer li nga xam ne nii moom mooy agence de régulation des marché publics mooy ARMP ñoom nag actuellement jël nañ ci ab dogal mooy ban dogal lañ jël mooy ñoom ils ont décidé tout bonnement suspendre marché boobu loolu nag c'est un camouflet hein mm. pour le directeur général le plus jeune du Sénégal mooy Jean-Michel Sène ndax moom mooy jiite ASER loolu moom defetam la mm-hmm. parce que tamit euh, loolu waa ASER waa AR waa ARCOP bu ñu demee ba suspendre marché bi rek ça veut dire que jàpp nañ ni en fait am na loo xam ne nii leeru si mm-hmm. léegi nag loolu pour mu leer en fait ñoom nee nañ dafa am ay documents yoo xam ne nii ñoo ngi koy laaj ASER ba léegi pour mën a traité différent boobu waaye nee nañ ba léegi mhm. document yooyu envoyé wu ñu leen ko ba pare teewul envoyé wu ñu leen document boobu ñoom ñoo ngi woyal marché boobu donc mhm. ce qui est illégal parce que tamit quand on est légaliste aussi mënuñu saisir l'organe de régulation organe de régulation bi pareegul sax yow yaa ngi continuer di kii donc euh, loolu moom lu ñuy ñaawlu la mm-hmm. donc euh, euh, loolu moom jàpp naa ni wa war nañ ko xoolaat d'autant plus que aussi ci dossier boobu yaa une banque españole bi nga xam ne nii moom mooy génnee financement yi banque espagnole boobu moom dafa ne day arrêter financement yi parce que gis na ni avance de démarrage génnee nañ ko te gisuñu ni en fait y a une effectivité par rapport ak loolu noonu ñu génnee maanaam ñoom génnee woon nañ avancé démarrage bu 37 milliards mais ñoom dañ si gisul dara lu leen leer moo tax ñoom tamit nee nañ saisir nañ euh, AAPC e l'entreprise espagnole pour mu jox leen ay leeral waaye nee nañ ba léegi gisuñu ay leeral la conséquence mooy suspension marché bi ça veut dire bu ñu suspendre marché bi ça veut dire que tey jii bon am na xaalis bu jot a génn mais beneen xaalis du génnaat loolu nag c'est aux grandes dames peut-être des ouvriers wala ñu waroon liggéey si marché bi parce que tey jii marché moom bu ñu ko suspendre ça veut dire que liggéey yu ñu si yaakaaroon peut-être du am te mm. alors que c'est un projet ambitieux boo xam ne nii 1600 villages la ñu wax ça veut dire que c'est à travers le pays le Sénégal daanaka dans toutes les régions mm. pour électrification rurale léegi nag ki nga xam ne moom mooy Jean Michel Sène dina euh, nangu injonction boobu ak mm-hmm. tamit quelle sera la réaction du nouveau directeur général de l'ARCOP parce que ARCOP ki nga xam ne nii moom mooy Sayer Niang nekkoon fa moom remplacé nañ ko mm-hmm. léegi nag on va voir ce qui va se passer mais en tout cas autorité yi la fait que ki nga xam ne nii moom mooy le gendarme des marché jël dogal respecté wuñu lool rek loolu moom lu ñu war a ñaawlu la mm. l'autre chose bon c'est par rapport euh, ak la polémique autour du voile gis nañ ni cette polémique là elle est de retour euh, mm. coow li amaan na ndax am na benn école boo xam ne nii defe naa Sainte Bernadette je sais mm. pas boo xam ne nii en fait benn xale bu jigéen boo xam ne dafa demoon di jàngi waaye ba mu demee di jàngi foofu muuru ñu génnee ko ci école bi léegi nag bon moom yaayam expliquer na ni en fait moom euh, xale boobu moom elle n'était mais ci école ba mu tëjee en fait ci la commencé muuru léegi nag ba mu demee ci école bi ñu dàq ko léegi nag on va voir fan lay mujj mais en tout cas Euh, c'est la première polémique en durant cette rentrée scolaire alors que y a beaucoup de choses yoo xam ne ni peut-être mm -hmm. yi waroon nañ ci focaliser yu si mel ni en fait yenn école yi nga xam ne ni dafa inondé mhm. di si mel ni manque d'enseignants mais problème boobu ñëwaan na l'autre chose c'est par rapport à, la réunion du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football mhm. léegi nag bon dinañ waxtaanaale si préparation tournoi des fédérations ouest africaines chez les moins de 17 ans ak tamit ce sera une occasion de présenter le trophée de l'UFOA chez les Juvins donc ce sont entre autres les grandes lignes euh, de la une de Source A <clears throat> ayca merci beaucoup Omar Serigne c'est bon après on y revenir incha allah on enchaîne tout de suite ak journaux yeneen yi ci des. alors gars daw leen ngeen jënd seen journal Omar jaajëfal la bu baax a baax daw leen ngeen dindi seen journal source a nee naa leen à bon prix la alors di ngeen mën a am le maximum d'information ay exclusivité ngeen mën a retrouver euh, ci biir yëglikaay bi ñu jógee fa dem seet ci beneen quotidien euh, bi nga xamante ni moom mooy Vox Populi ba tey mu daal di dikk addu ci li nga xamante ni rek moom moo di ki dem réintégration des déplacés déplacés euh, des, bien, du conflit casamancé Sonko lance le plan Diomaye euh, pour la Casamance yëglikaay bi di kaat ak ñun bu baax a baax ci koppar ga nga xamante ni namm nañ ko caa def jëm ci 53,6 milliards de francs CFA pour son opérationnalisation 22 euh, mesures édictées voilà donc mu mel ni euh, ni ki euh, démb jël nañu ay ndogal bu baax a baax ci ñi nga xamante ni ay déplacé woon lañ woon euh, foofee ca Casamance ak yenn dëkk dëkkaan yu yam yamambaay foofa nga xamante ni daanaka ay conflit moo taxoon gaa yi génn mais ñu duggaat ci biir bu baax a baax a baax mën a regagner seen foyer ak seen njaboot donc mu nekk initiative boo xamante ni ki démb le premier ministre daal dina koy fësal ànd ci ak lu tollu ci dix ministères toujours la une du quotidien Vox Populi ñu dikkaat bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di coalition Sàmm euh, Jàmm ak Njëriñ de Amadou Ba après Abdoulaye Dièye Mamadou Dione démissionne de la liste d'Amadou Ba dafa mel ni liste ba dina baax na Euh, yëglekaay bi dikkaat na bu baax a baax ci actualité euh, politique euh, second round bien recours de Macky Sall et Karim contre la candidature de Sonko et les listes de Pastef aux législatives anticipées les Pastefiens parlent de diversion et annoncent la haute cour de justice alors yëglekaay bi dikkaat na bu baax a baax ne bërki démb waxoon nañ fi ne takku wàllu dugal nañu benn recours juste pour ñu attaqué la candidature euh, de Ousmane Sonko tête de liste de la coalition PASTEF euh, tey jii nag beneen recours daal dinay dugaat tukkee ca Macky Sall ak euh, Karim Meïssa Wade ba tey ca le coalition toujours à la une du quotidien Vox Populi mu daal di ne waa Pastef nag takku nañu ba dëgër annoncé nañu la haute cour de justice jëm ci ñi nga xamante ni am nañ ay contre ñu war a rendre li nga xamante ni moom mooy la justice sénégalaise mu ne s'il gagne les législatives alors euh, El Malick Ndiaye la ñu fësal bu baax a baax euh, ci xëtu Vox Populi li mu àddu jëm ci ay révélation yoo xamante ni euh, def na ko ci secteur transport bi ba tey mu daal di dikk ak ñun daal di ne dañu leen di dajale ñoom ñëpp opposition bi daal di leen di làbbali ci élection législative yi nga xamante ni moom la ñu mal El Malick Ndiaye nee na lan moo tax ñuy ragal dem ak Ousmane Sonko ci yile élection législative ay Daffé encore se prononce à la une de ce quotidien ils ont peur euh, et ne savent plus où mettre les pieds opposition bi nag lay waxal Pastef annonce qu'ils ne vont pas utiliser les moyens de l'État pour battre campagne nee na dañuy demal seen bopp mbirum euh, porum voile bi nga xam ne ñu ko doon wax tout à l'heure xale yi nga xamante ni dañuy muuru en tout cas grâce yi daal dinay imposer li nga xamante ni euh, moom mooy le voile la croix et les perles sacrées imposées euh, doole lañ ko fësalee maanaam xale yi léegi nee na que ce soit dans les établissements privés au public xale yi dañuy sol lu nga xamante ni rek seenu gëm-gëm moom moo leen ko may ñu jógee fa benn a ci beneen quotidien le journal du groupe euh, des médias qui parlent de tout à fait autre chose. Classement des pays attractifs pour les affaires la Banque mondiale exclut le Sénégal yëglekaay bi dikkaat na bu baax a baax nee na réewum Sénégal nag dafa mel ne nag Banque mondiale daf ko daal di génne. mu ne les pays qui attirent les investisseurs en Afrique de l'Ouest sont le Togo le Ghana et la Côte d'Ivoire la Banque mondiale n'est pas satisfaite euh, du euh, climat des affaires et des investissements au Sénégal ba tey yëglekaay bi dikkaat ak ñun bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy la rentrée scolaire 2024 2025 mu ne quand la charité de la vie asphyxie les parents d'élèves jëm ci wàllum fourniture wàllum inscription waaye ci li nga xamante ni moom mooy wàllum transport yóbbu xale yi dem ak dikk en tout cas xaw na métti euh, ci parents yi mu ne réew mi métti na ñu jóge fa benn seet beneen quotidien bi nga xamante ni moom mooy le quotidien le quotidien qui titre en noir agression de Macky Sall à Casablanca la caution de l'État le ministre euh, des Affaires étrangères demande à l'ambassade à Rabat de porter assistance à la dame qui a agressé l'ancien président. L'APR fustige l'intervention de Yancy Yassine comme ni ñu ko waxee tout à l'heure femme bi nga xamante ni moom moo agressé l'ancien président Macky Sall ca ab vol la mu ko wax bokk ci ni pourquoi vous avez tué nos enfants lan moo tax nga nga rey suñu ay doom réewum Sénégal du ñu la mës a baal li nga ñu def entre autres daañu ci dikk ci seen dose yëglekaay bi ñaawlu na bu baax a baax taxawaay bi nga xamante ni jëwrin ji ñu dénk wàllum bitim réew euh, def na ko jëm ci protéger femme bi nga xamante ni moom mooy Aïssa Fall waa APR nag ñaawlu nañu ko euh, bu baax a baax a baax ba tey ñuy gis ay dafee à la une de ce quotidien Barthé Sonko lié par le sort nee na Barth ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko faaw ñu daje nag loolu dafa dafa war a am l'État mais un voile sur les exigences jëm ci wàllum arrêté bi nga xamante ni moom moo accompagner la rentrée scolaire ñu jógee fa dem se ci beneenuk quotidien Walf Fadjri xibaar à sa une Macky Pastef rancœur encore vivace yëglikaay bi dikk na ba tey fësal nataalub sal Sall euh, le premier ministre Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba tey mu fësal Bougane Gueye Dany eh, l'opposant bi nga xamante ni fësal na boppam dëggal boppam qui s'interroge sur le limogeage du directeur de l'ARCOP comme ni ko euh, Omar waxee tout à l'heure daañu ci dikk bu baax a baax a baax jëm ci dossier ASER euh, ak AO POW euh, ñu jóge fa dem seet ci beneen quotidien enquête ba tey ci langue politique gi disqualification liste coalition takku wàllu Sénégal dans les départements Amadou Ba a-t-il saboté Macky Sall point d'interrogation yëglekaay bi dikkaat na bu baax a baax nee na sept départements yi nga xamante ni mu mel ne nag euh, waa takku wàllu Sénégal am nañ fay jafe-jafe ñoom dañoo jàpp ne euh, kenn kese moom moo ca laale moom mooy euh, Amadou Ba mu nekkoon allié ci président Macky Sall jamono ji nag lan moo nekk seen jafe-jafe daañu ci dikk ci nu mu gën a yaatoo ñu jóge fa seet ci beneen quotidien Le témoin m'y titre également en noir un aperçu de l'état des lieux du secteur des transports El Malick Ndiaye brûle la gouvernance du maquis noonu la ñu ko bindee démb El Malick Ndiaye àdduna bu baax a baax a baax ca janoog taskatu xabaar ba nga xamante ni waa Pastef amaloon nañu ko jëm ci wàllum transport jëm ci li nga xamante ni moom mooy bilan provisoire lañ ko mën a tuddee sax entre guillemets ci wàllum dem ak dikk rawatina dem dikk bi nga xamante ni euh, sénégalais ràññee nañu ko jëm ci AIBD entre autres budget ak déjà li ñu jot a rationaliser jëm ci euh, yooyu les euh, secteurs témoin quotidien dikk na ci euh, ci nu mu gën a yaatoo la sénégalaise Koumba Dieng Sow nommée coordonnatrice des des NU au Togo voilà donc mu Nations Unies voilà donc mu ngi noonu euh, plus de détails à la page 3 euh, de ce quotidien jox ma beneen benn élève bi ñu dàq metti na ma de. Sonkobat, ça va saigner c'est ce que titre bés bi le jour midi 4 ba tey sur la candidature de Barthélémy Diaz nee na gannaaw ba ñu attaqué candidature bu Ousmane Sonko jógee ca Takku Wallu Sénégal bu Barthélémy Diaz daal dinañu koy attaqué devant les sept sages après celle de Sonko Sàmm Sa Kàddu accuse Pastef de vouloir éliminer un adversaire politique à travers une liste parallèle Ayib Daffé ba tey mu ne c'est un recours de délinquant euh, qui ne va pas prospérer Sonko est éligible yëglekaay bi dikkat na ci dossier euh, Power contre Azer euh, ba tey nag euh, daañu ci dikk bu ne la nouvelle éclairage les détails dañ ko gis ci xëtu yëglekaay bi ñu jóge fa dem seeti beneen quotidien L'Info Quotidien ba tey ca boobule dossier dikkaat na ci wàllum Azer dikk na ci Abdou Mbow également gis nañ ko mu àddu jëm ci li nga xamante ni moom mooy accusation ak euh, li nga xamante ni moom mooy euh, agression contre Macky Sall àdduna ci ñaawlu bu baax a baax taxawaayu nguur gu yees gi ba tey l'info quotidien qui euh, barassa une recours contre la candidature de Sonko Pastef désigne Macky et Karim leeral yi ci xëtu l'info quotidien ñu jege fa dem seet ci beneen ku yéene Le journal du groupe euh, euh, Futur Média Éducation, arrêté ministériel, le voile euh, et la croix autorisés dans euh, toutes euh, les écoles. Les détails de l'arrêté ministériel signé par Guirassi. Donc euh, ni ñu ko waxee woon rek ba tey waarum wàllum voile wàllum croix lépp loo xamante ni wàllum gëm-gëm lay laal ci nit dootuñu ko interdire ci les établissements privés ak comme public. mu ne enquête sur le business des répétiteurs et l'éducation un job lucratif mais épuisant loolu doy na wax tamit xaaral ñi nga xamante ni dañuy jàngale ci école euh, publique yi ba noppi dem ci privé yi entre autres di def ay cours yoo xamante ni Euh, cours du soir la euh, Omar dafa mel ni euh, am na am na gagne-pain mais metti na tamit. ah mais metti na kay parce que bu fekkee nii da nga war a def ñaari liggéey dans la journée c'est c'est c'est c'est difficile. mais quand mhm. bon comme que ñoom ñoo ngi ciy am xaalis rek bon sant rek. Ah, ñun sax dañu war a commencer dem jàngale ji quoi. bu ñu fàtte suñu doomi ci public bi am na solo. Mhm. alors ñu jóge fa dem seet ci beneen quotidien benn jox ma beneen benn nee la bu jeexee dama jox sama photo bi voilà donc li moo gënoon a à la une des journaux parus ce matin euh, mercredi ben voilà fa laa jëm ak moom fala ay lunette doona waar alors amoon nañu mbégte di leen ko présenter la une des journaux parus ce matin on se donne rendez-vous demain inchallah à la même heure d'ici portez-vous bien et gardez le sourire